mboolem soxna yëpp nag teg nañ ko ci loxo koo xam ne doom la ci kër gi taalibe la ci kër gi lépp la ci kër gi muy soxna Adja Momi Kébé mu mel ne jotaay bi est-ce que bis bi danoo war a ñëw rek xaxaloo dem déedéet jàngat la war a doon soxna may borom bis bii moo jëloon ñaari ginaar defar ko ca loxoom yu tedd ya ci xol bu sell xol bu sedd dem fekk magam sëriñam xaritam ba sëriñ Falilu ne ko dama laa teral si ci bis bi sëñ Fàllu ginnaaw sëñ Tubaa joxoon na ko kun fayakun sëñ Fàllu ne ko rafaate naa la mbóotu laylatul xadar di nga ci am lu kawe sa njor ñaari ginaar yooyu tey waa kër sëñ Basiiru Sarr jaamu sëñ Tuubaa def nañ ko ñaari junni ginaar kon loolu mooy la sëñ Tuubaa waxoon ni baarakali fi xarakaati wa sukkoot rabbi lazi xat-xaadali kun fayakun soxna may utal na laylatul xadar kër kon barkeb sëñ Fallou bàngo soxna may utal na laylatul xadri daayira soxna may am na tool boo xam ne sax toolub laylatul xadri kon guddi gii nag ñu war cee jàng tuuti yàlla moo ni xayril min alfi shahri soo ci jaamoo yàlla tey ci guddi gi junni weer loolu kenn mënu koo dund moo gën a kawe junni weer yoo jaamu yàlla junni weer yoo xam ne dangay ngay wóor bëccëg ya di julli guddi ya sëriñ tubaa ko xam moom nag moo wax ne allamani maa kaana xablal xalax man kaana lii bi karaman wa tilax allamani yàlla xamal na ma maa loo xam ni kaana nekk na xablal xalax la jëkk muy bind dara moo tax kon lay laylatu xadar mënu koo jaaxal am na nag borom xam-xam yu ne kenn xamul fu mu nekk sëñ Tuubaa maa xam ñu ne ko Mbàkke noo ko xamee mu ne làkksun liyatun zaakun rajas hakkajun jukkatun zahakun mayes léegi ñu war a xalaat ci sunu xalaati bopp dañ ne guddi gi gën ci guddi yi ñu ne kon fan la war a nekk ci at mi ñu ne weer wi gën ci weer wi ñu ne kon kañ la war a doon ci bis yi ñu ne bis bi gën ci bis yi muy guddik ajjuma ndax guddi gi am doole ba mënta nekk talaata al ajjuma moo gën talaata guddi gi moo am doole ba mënta doon altine altine ajjumaa ko gën guddi gi doole ba mënta doon alarba sëñ ne dee leen ko xool ci bis yi saa yu ñu wooree nangami fan lay doon ajjuma lay doon guddi gi ajjuma lay doon te day tool fi ne calculkat yi ñi def mathématique observateurs yi experts yi waroon nañoo taxaw loolu rek doyoon na waxtaanu ak ci Sénégal ñu càmbar ko xool ni Sëriñ Tuubaa génnee guddi gi lay la tu xadar Sëriñ Tuubaa nag lépp yàlla am na kum ko dénk ci njabootam sëñ Moustapha Bassirou daa gane si sëñ Modou Rokhaya sëñ Modou Rokhaya daal na ko lan la la sëñ Basiiru mësoon a wax loo xam ni danga ma koy wax ma jànge ci taalibe nee na mu ne ko mës naa koo laaj ne ko ñun sëti sëñ Tuubaa yi nan lan demee ak yéen doomi sëñ Tuubaa yi nee na sëñ Basiiru dafa tudd yàlla ne ko mu sofaa mu ne ko Mbàkke mu ne ko aka sore mu ne ko ñeen fukki sëti sëñ Tuubaa yu dem ba am fukki at te mosunoo def lu naqari suñu borom boo boolee seen maqaama nu muy tollu mu ne ko bari lool Mbàkke mu ne ko boo leen jëloon teg seen balance boo jëloon ñeent fukk yooyu teg ko ci balance seen maqaama jël soxna May mi nga xam ne caatub Sëñ Tuubaa la ba noppi di jigéen bu tegee ca geneen wet ga téll ga fu ay toll di ko dégg kon doomi Sëriñ Tuubaa faat na